salaamaaleykum sunu mbokk internet yi nii di leen di teewlu ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu saa su nekk ci euh, site bu mag bi di grand théâtre point tv tey nag ñu ngi fii ci yow fekk ci Serigne Moussa Sow sëñ Moussa ginnaaw bi ñu la nuyoo dañuy dem directement rek ci waxtaan bi sëñ Moussa li wolof di wax naan lu xew-xew li ay di njàmbat euh, ñi ngi ku ne xam ne ñi ngi ci période boo xam ne si période coupe du monde la Sénégal di ci waaj pour war caa dem coow li bari na sëñ Moussa en tant que Serigne nan nga gisee taxawaayu Sénégal foofu ci coupe du monde. asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, nuyu nañ lépp ziare leen waaw sëriñ bi eh, jamono yi dégg naa ci wax yu bari eh, seetkat yaa ngi wax journaliste yaa ngi bind ñiy toog ci grand place yi ñu ngi wax lépp ñëpp ñëpp ñu ngi wax ñu jëmale ci coupe du monde bi ñii ñu naan joueurs yi ñii la ñii ngi naan ah, dañu war a wuti sëriñ ñii la ñii ñu ngi wax yeneen ak yeneen mm-hmm. waaye coupe du monde bi dafa nekk loo xamante ne nekkul pour kenn nit pour Sénégal yëpp la te Sénégal dafa am ay jullit am ñu dul jullit am uh, ay sëriñ yu baax am sëriñ yoo xamante ne lu bon moo leen tax a jóg uh, kon nag loolu Sénégal dafa war a xam loolu am nu mu ci ma taxawee ndax man xam naa ne am ñoo xamante ne tey jii ñu ngi jóg sax pour équipe bi bañ a dem équipe bi nag bu ko xamee war nañ koo xam buñ ko xamul it war nañ koo xam uh, ñu xam am taxawaay buñ ci def ndax nekkul ne rek nga jàpp ay joueurs ñuy entraînement ba ñu pare. nga dem leen yóbbu yóbbu leen foofu ku nekk dakay am ginnaaw ñëpp dañu war a am ginnaaw ñëpp nag booloo ñu jàppale équipe bi mu dem ñii di gas ñii di suul loolu demul te man xam naa ne gis naa ni man maa gis ñii di gas ma gis ñeneen di suul man gis naa loolu. li nga wax noonu sëñ Moussa da nga ci am preuve wala. yu preuve yu leer nañu laa ci am. ñii di gas ñii di suul man gis naa loolu. waaw preuve yi mooy ñi nga xamante ne bëgg nañu équipe bi dem ñeneen ñi bëgguñu équipe bi dem ndax am na place yu ñu ñu ñu bëggoon a toog tooguñu fa ñu jox leen seen seeni eh, seen morom bëgguñu équipe bi dem ñoo ñu di am ndam seen kaw. maanaam xam nga sëñ Moussa Grand Théâtre point TV lu leer ci la dox. Mhm. Euh, dañoo bëgg nga leeral ñu ñi nga xam ne si ñoom ñooy gàllankoor équipe bi ay ay ay joueur lan wala ñoo xam ne si ay dirigeant lan wala ay sëriñ lañ yu yàqal équipe bi. Eh, yi eh, dañuy yàqal équipe bi waaye dañ leen koy sant. waaw ndax Serigne footballul euh, ñi yàqal équipe bi yenn joueurs yi. Mhm. am ñoo xamante ne bëgguñu équipe bi dem ñu ngi dem ci Serigne yi pour équipe bi mu bañ a dem. ndax jëluñu leen jamono bii nii. Mhm. am ñoo xamante ni dirigeants yu mag yi ñu njiit yi la. Mhm. teguñu leen place wala ñu tegoon leen fi dindi leen fa. ñu ngay bëgg équipe bi du du dem ndax seen ñi ñu fa teg ñu bàyyi leen ñooñu duñu am ndam. waaw. li ngay wax nii ñooñu bu njëkk lan daan def loolu wala jamono jii di Sénégal di waajal coupe du monde ñoom ñi ngi jug di yàq équipe bi pour équipe bi euh, am gàllankoor. waaw bu njëkk dañu ko doon def. Mhm. ba yàlla di dogal Sénégal di dem ba dugg coupe du monde bi. Mhm. léegi nag bëggatuñu comme ñoom amuñu woon li ñu bëgg. Mhm. léegi nag senegal bu mu am ndam ci coupe du monde bi. te ay sénégalais lañ ñu ngi fii biir Sénégal. ñooñu yow xam nga leen. xam naa leen bu baax. xam naa leen bu baax am na ku fi mujj ku ma mujjee euh, jokkool jokko euh, dégganteel loolu laa ko wax kooku xamante nañ bu baax ma ne ko dafa am loo xamante ne yàlla def na ko ba pare da ngeen ci war a ànd bu Sénégal gañee ñun ñëpp la gañal kon nag gañalul kenn ndax dafa am lu ma doon sant ci loolu naa def ay def-def ci yooyu. ci kan ci kenn wala ci équipe bi. ci équipe bi te kooku it dañ koo jëloon dañ koo jël fay ko. dañ ko jël fay ko ndax équipe bi bañ a dem mu ne ma man diw moo ma jox nangam ndax équipe bi mu am gàllankoor nangam ak nangam ndax yow amaloo ma ci pexe ma ne ko ma am naa ci pexe waaye man maa ci deful pexe boobu man luy jëmali suñu réew kanam rek laay def waaye li koy gën jëlee ginnaaw bi. wax noonu ci fédération bi la nekk wala ci gouvernement bi wala ci ñi bëgg doon xëccoo ak fédération bi dañoo bëgg mu leer sëñ Moussa. waa xam nga. di dafay leer ndax yàgg-yàgg moom dëgg bi da koy feeñ mm-hmm. euh, bu feeñul tey rek dina feeñ ëllëg ca yowmal xiyaama mm-hmm. waaye dafa am loo xamante ne mm-hmm. euh, dama ko doon waxee noonu rek pour équipe bi xam Sénégal si boppam mu xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñu xam ne ne bëgg nañu suñu bopp waaye am nañu bëgg bëgg Sénégal ba pare bañ Sénégal waaw bëgg réew mi ba pare bañaale ko ndax sag boo bëggee réew mi ba pare bëggoo ndi réew mi am ndaw yow bëgg nga nekk Sénégal mais yow bëggoo senegal mhm. da nga war a bëgg réew mi am ndam. Mhm. Mhm. Euh, yow lan mooy sa taxawaay comme ñi nga xam ne si ay sëriñ lan euh, dëkk ci réew mi doon doomu Sénégal war a jàppale équipe bi léegi wëlbatiku ñu leen di jox xaalis ñuy ñuy xeex équipe bi. loolu man li ma leen di wax rek mooy du duñu nitu yàlla ay nit seytaane lañ ndax seytaane dara jor ko lu dul mbiri yëfi àdduna ndax xam na ne bu deewee dañ koy lakk sëriñ yooyu mën nañoo jàpp seen bopp comme ay lañ. ndax nit eh, eh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee alxasuudu laa yasuudu mhm. iñaan mhm. du mosa am ndam mhm. eh, ndax du tedd ci at waaw bu bu bu bu amee bu reetaane tey benn yoon dina jooy ëllëg junni yoon man li may wax sëriñ yooyu ñu bàyyi yëf yooyu alalu àdduna bi day jeex te jara jar ko fi dara jaru ko fi. Euh, li mu bëgg a xam mooy euh, comme ku mel ne yow. Mm-hmm. léegi lan mooy seen taxawaay lan moo tax yéen euh, bu ngeen ni pour ngeen ñaanal équipe bi rek il faut ngeen aj ceeb xaalis bu bari ngeen ne fédération bi na ma seet si wala président bi na ma seet si pour ñu jox leen xaalis ngeen doog a ñaanal équipe bi te ay doomu Sénégalais ngeen war ngeen a ñaanal équipe bi. waaw am na ñuy def loolu ndax nit bu ko weddil dara. Mm-hmm. waaye man yàgg naa leen ñaanal. Mm-hmm. fekk buñ ma dajee si ma xàmmee. ñi ñuy yónni mm-hmm. ñu ñëw ci man ma defar ko ma ko bu fa wax sama tur mm-hmm. ndax man bëgguma sax ñuy ñuy génn ci mbedd bi ñu naan kee mm-hmm. da doon ñaanal équipe nationale wala yooyu ñi ñu yónni bu ñu ñëwee kooku moo xam lu mu leen wax moo xam ne dafa demoon Niger wala mu demoon Daara Jolof ba mu dem fu ko neex moo xam ne wax na leen fekk man sama digganteeg moom li ma ko defaral defaral naa ko mu dem ma ne ko bu ma woowee sax sëriñ waaw ñaanal naa la demal waaw man bëgguma équipe national bi ak yow mi toog ak keneen kiy dox ci mbedd bi di jaay ay écouteur laa yemale mhm. ak njiitu réew meeg ministre beeg député beeg yépp laa yemale man yow yaa ngi def équipe bi pour mu gagné te du fa fayuñu la dara euh, liñ may fay de bariwul ndax euh, ñaan ba lañ muy laaj rek laa leen di laaj bu dee ñaan bi juróomi dërëm lay laaj laa leen dërëm li ma doon wax ñi nga xam ne si dañuy laaj bu leen joxul xaalis duñ ñaanal équipe bi euh, waaw xam nga Euh, loolu wax naa la ne am na. Mm-hmm. am na ñu koy def waaye tey comme li nga wax moom laa bëggul ànd ak yow. Mm-hmm. na ma fédération bi seet nañ ma jox million nañ ma jox lii ma ne la man loolu bon bokk ma ci. Mm-hmm. yow mii boo ñëwee nga ne ma ndam nga bëgg te nga yor équipe bu ndaw équipe nawetaan. ma ne la man de li may defaral équipe équipe bi ñetti junni la. équipe nawet équipe nationale ñëw. dama ko naan ñetti junni laa koy defaree xooluma kii équipe nationale la wala Barcelone la wala kii. lii gàllaaj bi di laaj rek laa koy laaj. Mhm. Mhm. Euh, ndax mën nga ñoo nettali loo xam ne si lu passé la ci équipe nationale. dañu mhm. dem Coupe d'Afrique toog yow sa bopp nga toog yor sa kurus xam ne lii nit a ko def ba Sénégal toog waaye waroon naa jàll ndax loolu mën nga ñu cee nettali benn anecdote bu passé. Euh, sëriñ bi loolu su ma koy nettali fii dinaa ci nettali yu bari xaw ma sax ban laa ci ko euh, tàmbali. Sénégal musul Sénégal. bi bi passé rek bi ñu équipe bi kii bi nu tudd ñun Coupe d'Afrique bi passé. Coupe d'Afrique bi passé am na ku ma woo téléphone man maa ko woo ma ne ko su ngeen defee nangam de dafa am lu ñu def su ngeen defee nangam dina deñ te fi fii ci biir Sénégal lañ ko defee. ci Sénégal lañ ko def ñoo ko def de. Sénégalais yi ñoo ko def ma ne leen am na lu ñu def su ngeen defee nangam dina deñ su ngeen deful nangam Sénégal bu dóoree Cameroun 10-0 première mi-temps deuxième mi-temps Cameroun di ñu dóor 11. kon looloo tax Cameroun éliminé. loolu moo tax Cameroun éliminé. ndax nit ñi defuñu ci li ci war mhm. Mhm. dañoo demoon ba nga xamantene ñu yaakaar ne amuñu noonu mhm. loolu sax dafa yërëmtalu ngay dem préparer sa lépp def sa lépp président bi jox leen lépp ñu dem ba foofu am ñoo xamantene ne bëgguñu dara lu dul na équipe bi toog waa léegi euh, sëñ Moussa yow bi nga xamee ni def nañ équipe bi dara te yaa ngi toog fii ngay télé bi en direct lan moo tee nga jël sa jaayante rek ni man Sénégal la dëkk jéem a fexe ba Sénégal gagné waaw loolu de mën nañ koo wax nii rek waaye yombewul noonu ndax mhm. dafa am loo xamante ne du kurus kese moo koy defar mhm. xam nga dañu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne as sadaqatu mhm. tutfiul xatia kama tutfiu maa un naar mooy sarax day fay ñaawteef comme ndox mi ni muy fayee sawara dafa am loo xamante ne du kurus ay sarax la kurus sax boo ko bëggee téye nga ciy wird yàlla di la di la di la di la nangul say ñaan dafa am ay sarax yooy def sarax euh, dafa bokk ci ñaan euh, bu doon a kurus rek la kenn du leen dóor man dinaa leen téyel kurus keneen ak keneen ku mel ne man téyel leen kurus waaye dafa am ay sarax yoo xamante ne ñoom ci boppam ñoo ko war a def ñu gis ku mel ni euh, Selbé Ndom mu daan faral di seet ci làmb ji léeg-léeg mu wax mu am léeg-léeg du am lu ci bari. ñu gis ko fan yi mu def benn sortie wax ni senegal dana sori ci coupe du monde bi yow en tant que sëriñ loolu nan nga ko jàngatee waa xam nga euh, ñooñu noonu dañuy wax rek tey seeni mbir yooyu yu kenn xamul fen loo leen suba ñu mu wax loo leen dëgg euh, loolu ku ciy sukkandiku yaa ngi sukkandiku ci loo xamante ne garantiwul nit booy wut xam-xam walla ngay wax fexeel saa boo waxee euh, na ngay wax loo xamante ne suba dañuy xam ne dëgg la waaye tey nga fen maa ngi baalo ak si baat bi suba nga wax dëgg loolu lan la tey ñan ñoo la mën a gëm ndax nag xam nga lan moo koy andi eh, dañuy seetee mbiri jinne mm-hmm. pettaaw mbiri jinne la mm-hmm. jinne da lay fenloo mm-hmm. eh, dégg naa ci sax ku naan waliyu la muy kan ah déggoon naa ci rajo yi kii si tele yi ma dégg ñu koy waxtaan nii fekk maa ngi toog nii yore sama course ma dégg eh, télé benn télé ñu ne mu naan ko yow wali yu nga nee nga wali yooyu. doon wax wali kan la ndax mën nañ ko xam. Eh, man kay damaa damaa xamatul turam ci benn kii rek lañ ko invité. salbe ñuy waxati mën na am mën na am beneen jigéen wala góor la ay góor la ñu bari yenn woon. Mm-hmm. ay kii ah bu dee nit bu dee moom it moo ko wax. Mm-hmm. ah ñun de jànguñu jànguwuñu alxuraan wala yu mel noonu. Mm-hmm. wala yu buy ñun mosuñu koo gis. waliyullah laax ñuy wax nag buy pettaaw waaye walakin waliyu taaxut waliyu saytaan waliyu saytaane nag mën naa pettaaw ak di di def loolu. nga gis ni waliyu saytaane la. Ah, bu dee day pettaaw moom waliyu saytaane la. Mhm. waaw ndax euh, euh, lislaam amul pettaaw. Mhm. da koo dàq. Mhm. balaa yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam fekk na fi ay bettaakat fekk na ci ay ay tombkat fekk na fi façon nit bu nekk. ñoo xamante ne ay xërëmkat loonu da leen dàq mu ne lii bokkul ci sama diine. mu ne nag. koo xamante ne sos na ci sama diine ne loo xamante ne bokk ci loolu yow de génn nga ci ñun yonente bi sallallahu alayhi moo moo ko wax waaw macha allah sëñ Moussa xam naa waxtu bi dañuy njëkkanteek moom mu mel ni jamono ji yaa ngi gis euh, euh, coow li bari na ci autoroute bi mhm. accident yi bari na mhm. naan ay nag ñoo ne ci autoroute bi di traversé ñi ni ay junne fi ne mhm. raba fi dëkk yow ban gis-gis nga am foofu ñun dañoo dëkk ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi ñuy gis ñun gisuñu leen mooy jinne yi balaa ñuy gën a am li leen neex coow am ñu dugg ci biir jaxasi xolu nit ñi ñu reyante ci seen biir lu mel ne lu mel ne li xewoon ndaar ki démb kii ñu fa kii ba mu koy rey teyu ko ndax jinne moo jule ndax dañuy wax yuy was wisu fi sudóoru naas ñuy dugg si biir xel yi jinne yi nag dañuy waral accident yi mm-hmm. jinne yi dañuy waral accident yi nee na ci minal jinnati wan naasi kon nag seytaane yi nekkuñu jinne rek de am na ay nit yoo xamante ne mën nañoo yore beneen melokaan di di faagaagal nit ñi foofu fekk ay nit lañ. kon da nga gis ni xew yi am ci réew mi nit ñi ak accident yëpp ay jinne koy waral. wala ay jinne ak ay nit mm-hmm. ak jinne ak ay nit mm-hmm. ndax jinne eh, jin seytaane jinne la mm-hmm. eh, am na ay ñooñam yoo xamante ne ay jinne lañu. moo leen recruter ñu koy demal ay ay mission am na ñoo xamante ni ay nit lañ. seytaane la ñu àndal te jii mën nañoo def lu nekk. ñoom mën nañoo def lu nekk mën ngaa toog ak moom ba yàgg sax dootoo ko gisati. fekk nit la. yàlla may na loolu nit. ngir mucc ci. Mm, ngir mucc ci nag nga wut lu lay aar ci moom. ngay wut li lay aar ci moom ndax jinne yi. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax dañ koo joxoon kaaraange. mooy falaqi ak naas yi. comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam njabaraan ba ñu ba ñu jàpp ko. kon nag ñun nan lañu def ñun ñu simple yi. koo xamante ne eh, ci leeram lañu bind lépp. ñun li ñuy aar ak lépp ci lañ ko bind. Lini ni ci la bu dul woon reeru yonente bi sallallahu alaihi wasallam tay munu ñu ci wax kon nak ci leeram lañu bind lepp koku ñu njabaraan ko japp ko te niñ ko njabara won du ci alquran ci affaire jinne la bu ñu demee ba japp ko ci lool kon nak ñun lan la def ñu xol rek lamu ñu digaloon li nga xamantene mag ñu baxé doon nañ ko ñukoy def wa ñaan nak sa booy ñaan jinne jinne bi dina la wor xam nañu ñuy ñaan jënd nag waaw macha allah sëñ Moussa xamna dañ lay bayyi nga tagu tok suñu mbokk grand yi la doon tewlu Euh, ñoo ngi ne ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen euh, di leen baalu àq bu baax di leen baalu àq euh, naan fii luñ fi wax rek mu juble jub si ñu boroom subhaanahu wa moo ko jubal lu ñu fi wax mu dëng it ñoo ngi jéggalu ñu xam ne ñun ñooy jaam bu matul ñoo ngi tàggu ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp tawfiq ak taysiir wassalaamu aleykum wa